mbokk yi sunu xutba tey bi ñu ngi ko jëmee ci ñaari xaaj lay doon benn bi ñu ngi ko jëmee ci taxawaay bi nga xam ne moom la taxawaay réew mi toll fan yi bi ngi des ñu jëmee ko ci guddi gu tedd gi ñu jëm ci suñu kanam muy al isra wal mihraj mbokk yi ñu xam ne sunu boroom dafa ñoo tera wattandikoo mañeelante ak noonu ak ay ak xëccoo moo xam ci kenn kenn yi la moo xam ci mbooloo mi la wax na bu aw ay amee walla xëccoo am ñoom danoo war a góor-góoru defar seen diggante seen biir buñ ko mënul nit ñi defaral seen diggante loolu kon farata la julli ji moo moo moo ñaari nit ñu xuloo wala mbooloo mu xuloo ñu defaree diggante boobee bu ñu ko mënee boo ko jëmee nag te kenn ki mel na dëgër bopp boobaa nag fa xaatul li ci taq ata tafee ila amrillah li yàlla wax ka ka bopp te nanguwul loola nag boobaa dañu war jëflanteek moom am ngeen ne <clears throat> fan yi dëkk bi réew mi tension bi yëkkatiku na lool xol yi jug yàq gi bari lool ñetti fan yi liy yàqu ci réew mi kenn xamul dum toll lim tardel ci réew mi kenn xamul dum toll ana lu ko waral li ko waral de moo ne lu tuuti la loo xam ne lu yomboon na régler la ndax ngir ñoom ñoom dañ ne <clears throat> ñaari ñaari ñaari nit rek ñoo jote boo demee tribunal fi mu ne la fa nekk ci ay dossiers yoo xam ne ñoo dosi bii ñooy yem ñoo kenn duñu ko lim boo dem tribunal ñoo dañuy wax ne moo ëpp ci dossier yi tribunal Sénégal suy góor ak jigéen ndax doonul lu yomba lu yomba lijjanti kon nag bu lii bu ñu ko jàppee ne dossier yooyu yor doxa ci ak tey ak dal kon réew mi du toll fii mu toll waaye nag doxe ci ak yàkkamti ak gaawtu ba tax ay njumtu yu baree bari am ci ba tax ñu baree bari jàppe ci ne ay kompaloo da ci am loolu gaawtu ga moo leen ko teg ak tadaabur moom te kenn mënut dàq nag ne am na ci ci Yonent bi sallallahu alayhi dafa ñu ko tere نعانا سيدنا موسى عن التقاطع والتدابر والأنقاد والضغائن وحن لا تباغضوا ولا تخاطهوا ولا تضابروا ولا تحاسروا وكونوا عباد الله إخوانا يجب نين بولين دي مانينتي بولين دي دوغن سين ديغنتي بولين دي كوم بولونتي بولين يانتي نين دون اي جامي يالا اي بوك نين وملني لي في خاو نك دونت ndax xamuñ ko waaye li ci kaw rek mooy ku xool moom da nga xam ne am na lu ci dugg loo xam ne yoonu yoonu yoonu ñeneen ñanca loolu nag moo indi tension bi agsi ci réew mi ba kenn xamut fu mu ñu jëme yàlla nu ci yàlla dimbali nag ba mu ba ba mu ndox sotti ci ndox mu sedd ñu xam ne population Sénégal bi ay nit ñoo fi nekk ñoo xam ne am na xaqu taabiir han mo mawaqifihim ku ne sa nga taxaw wax li nga xalaat ci mbir mo xam qadaya asiyaasiya wal wala iqtisaadiya ba itam lu si ne ku ne sañ na ci wax nang nga ko gisee lolo ci sa dund la aje lolo ken mënu ko xagn nit ñu fi nekk itam ñu xam ne ñun ñoo leen fi teg ñun lan fi ne ñun lan fi nekkal kër yi ñuy dëkk oto yi ñuy ne yor ak avion yi ñuy tukkee yépp sunu alal la kon nag dañoo war di déglu xam ne population bi ñoo leen fi bàyyi lépp loo xam ne ñu ngi ciy jëm te xam ne lii neexut population bi jubu leen ñu war cee doxe ak tey ak dal ak leeral ba mu leer ci bopp nit ñi te bañ cee doxee seen doole ak seen kattan ndax doole ji kattan nga nit ñi ñoo leen ko jox te xam ne réew mi dafa soppi ko réew moo xam ne soixante-dix pour cent ay xale la bokkut ak ni ñu ko yoree bokkut ak na ko Senghor ñoom yoreen Abdou Diouf ay xale fi nekk yoo xam ne jàng nañ li war a jàng xam nañ li ñu war a xam ñooñu daa am nun leen di yore waaye kenn du leen yore ci doole ak yat te boo xoolee ci ginnaaw ñu doon mbëkk mi nga xool ni ci gone yi doon dugge ak intellectuel ñoo nekk ci biir nga xam ne ñii ragaluñ faatu kon ku yor ñooñu nit nag nit ñoo xam ne wóor na li seen bakkan yi moom ragaluñ ci mu faatu ndax li dund ci réew mi jàpp nañ ne moo faatoo yam kooku boo leen di yilif di leen jiite da nga xam noo leen di yilife ak nooy dox ak ñoom ten xam ne Serigne Touba wax na ne waxoon na ne képp koo xam ne yaa ngi yore nit ñi aw yat wala jeexi doo ko teggeeti ndax saa boo ko teggee rek nin juwaat kon aw yat akub yar du yor aw nit aw bëy ak xar lay yoy yor way nit mom dañ leen di yar dañ leen di yoree ci am xel ak wax ju rafet ju jup waaye ak démocratie waaye kenn dañu yor ci aw yat ak te wax na ni tan ne lu la aw yat ak ak ak ak ye ci may mo la koy xañ lépp lo xamne dañ ko jële ci doole doole mo la ci jële kon nag ñi yité mbolam yi nañ bay seen xel ci loolu te xam ne nooy ak yërmane ak ndimbale moom la ñuy yore mbooloo yàlla dafa waxoon yoon bi sal fa bi ma rahmatin min allahi linta lahum sa yërmane ju bari ji de moo tax nga ci la yàlla nooy la nit ñi waaw walaw kunta vassan xaliza al qalbi lan faddo min xawlika waaye boo doon ko tàng bopp ku gaaw a mer sa mbooloo mi la wër tasaaroo kon nag ku jiite nit ñi da ngay nooy am yërmande cay déglu nit ñi faafu anhum da ngay jéggal nit ñi tam nag boo jiitee nit ñi xam ne danga war buñ la tooñee nga jéggal leen wastaxfir lahum waaye boole ci ni wasaawirhum fil amri deel diisoog kilifa yi ci réew mi réew mi kenn moomu ko ñépp a ci am wàll rawatina kilifa yi ñi nga xam ne moom ñoo ci ëppale ñëpp kon waras na leen di déglu te diisoog ñoom ci mbir yu mel nii waaye lu mel nii de am kenn ci wax ak kilifa yi te mu mel ne itam booy déglu ci rajo yow da ngay bëgg a jaaxle ñëpp naan na kilifa yi wax na kilifa yi wax na kilifa yi wax kilifa yi kenn mënu leen jaaxle fi ne ndax bu réew mi amee jàmm bu ñu dugg ci politique bu sëriñ waxee ñu ne sëriñ si dana war a noppi lii du seen wàll bu réew mi tàngee ñu ne sëriñ si danoo war a wax ñoo mënti nit ñi dara nit ñi kon nag ñii nga xam ne ñooy politiciens yi ci yaakaar ne ñoom ci ñu néew ci réew mi ay minorité ba noppi nag bëgg a nit ñi di leen jëme fu leen neex buñ njàqee buñ njàqee xëcc sëriñ si bu njëkkee sànni sëriñ si loolu nag kii sëriñ si itam ñoo si war a xool seen bopp xam ne mbooloo mi ñoom seenu mbooloo buñ leen loree ñoom lañuy lor buñ leen dimbalee ñoom lii di kon ñu taxawu mbooloo bu baax a baax te bañ leen a bàyyeeg politiciens yi rek di jëme fu leen neex yonent bi sallallahu moo gënoon ñëpp ëpp ñëpp am xel gën ñëpp te teewul dara diisoo te bu diisoo la ko la ko saaba yi wax moom lay def bari na xeex xeex yoo xam ne lam xalaatoon du ko tegee taabal saaba yi wax la leen da leen fekk ca loola kon nag kilifa day nangu diisoo day nangu delu ci xalat nit ñi ci bañ ne lu ma ngak ŋànk dagg ko lolu yalla rek moko sañ bo de lo ngank dag ko da nga ngank dara sey bañ des ca te kilifa itam day moytu dañuy wax ne borom ciak day moytu xulok borom batum neen ko xamne bu dara bu dara xewé yow lañu jëk dag كان يرلو يرلو رك كوكو يو يو مي يخون يا برم تين يا سيت دا غاي دوخ نيني كون نك ناي ني جيت ريو مي ناي ديغلو واد نيني بو باخا باخ تا باña توب سين خول باña توب سين خل ورا يالا وخات والكاثمين الخيس والحافين عن الناس نيغا خامنا داني وان مر تي جيغل نيني لين توغ ньоньо موي ني يالا بك وخات نا خوس الحف امور بالحرف واهل الان الجاهلين na ngay da ngay jéggale tey digle lu baax te ñu réer ba di la tooñ nga nga dëddu leen bañ leen a topp kilifa noonu lay def wala tastawi al xasanatu wala sayya idfax billati hiya ahsan lu ñaaw ak lu rafet moom duñ duñ duñ duñ tolloo mukk moo tax bu la nit defee lu ñaaw yow fayee ko lu rafet te boo ko defee nit ku la defal lu ñaaw boo ko fayee la rafet rek day mujjoon sa soppi serigne touba dara wax na ku ñaan ñu xëccoo ku ñëk baye mo gañ na ka ka mo day daanu kon kilifa day du xëccoo ne duma baye bàyyi bi sallallahu alayhi wasallam wax na ar inna inna allah rafiqun yuhibbu rifqa fi amri kullihi yalla dafa bëgg ak dal ak ndànk loy def nga and ko dal and ko ndànk ndax dañuy wax ne loo loo ne tekk tey rek tekk ak tey way la bunt waaye ku ne xam na ne fan yii ni ñuy doxee moom tekk tey amu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na kullukum raaxin wa kullukum mas'ulun an ñun ñëpp ay responsable la ku ci ne la nga li la yàlla dénk yaay responsable imam responsable la ci mu war a wax nit ñi dëgg leen teg ci yoon boo ëllëgee boo ko defee dis na ko war rajulu raahin fii ahlihi nit sa njaboot yaay seen responsabilité yaa yor seen responsabilité boo leen bàyyee ñuy def ci loon dugg boo liggéey yoo leen koy laaj wal maratu raahiya fii bayti zawjiha jigéen kër boroom këram mooy mas mooy responsabilité bu fa deful la fa war mooy moom la mu koy laaj wal xaadim mbindaan wala jaam ku mu mën doon moom itam alali sangam mooy mooy mas olam mu mel na kon léegi ñi xam ne ñooy ñooy nguur yi nguur gi ñoom ñooy suñuy jaam ndax ab Diouf ko ma jaamu soxla kon ñoom ñii ñooy suñuy ñoo war a sàmm suñuy alal ak suñu lépp ñoom lañ ko war a laaj yàlla waxaat ci alxuraan ne inna allaha yaamurukum an ta'udul amaanaati ila ahliha yàlla nee na liñ leen dëkk muy autorité yeeg keneen ku mën doon way saakatu benn bay na naa si an taxkuma bil adli ca booy atte nag nga atte nit ñi ci dëgg atte nit ñi ci dëgg loolu la yàlla bëgg kon ñi nga xam ne ñoo yore justice itam di atte yëf naan fexe ba dëgg gi ñu teg ko ci kaw ca bañ a xool kenn bañ a xool intérêt kenn loolu bu ñu ko defee jàmm ji dana yokk kon nag nga xam ne réew mi réew mi ay gone fi ëpp doole ñoo fi bari te gone yu jaaxle na ñoo xam ne am ñu liggéey yaakaarun dara dara dara dara jàng na ñii jàng nañ ba noppi yooyu gone nag ba ñu yoree da ngay xam na ngay jëflanteek ñoom di naxanteek ñoom ca bañ leen di jaay doole ndax jaay doole amatul ci àdduna si ku ne xam na ni leen yàq ci fet yi réew mi taloon naa leneen lu moom bu yàgg ba tey ñu ci kowit bi di ko soow waaye ku ne xam ne ñett fan yi kenn talatul Covid sax ndax ñàkk jàmm gi te jàng nag jàmm nag moom ci la lépp xaj Sëriñ Tuubaa wax na ne xool na ci àdduna xool ëllëg gisu ci lu gën jàmm Sidna Ali itam wax na ne gisu ci àdduna lu ëpp solo jàmm gisu ci àdduna lu gën a metti soxlaal nit ñi dara kon nag suñ jàmm ji nga xam ne yàlla may nañu ko muy suñ koom koom àdduna sépp fu ne ngay takk fii ñu am ay kilifa yoo xam ne def nañ fi loo xam ne ñu ngi mucc doonte nag jànq taw bi loolu lañu béyee dégg ne sëriñ si seen seenu ñaan moo tax jàmm jàmm am ci réew mi waaye waaye ku ne xam ne daal Sénégal moom mi ngi am jàmm joo xam ne si àndoon lu ko waral ñoom nag nu ko nu ko déggee baax na waaye ñun ñi nga xam ñu daal li ñu gëm mooy suñu Seexul Xadiim mii lim liggéey ci réew mi tax na jàmm rek moo fi am kon nag jàmm joojee nag lu koy yàq dañ koy moytu danañ yàq luy mucc te loolu mooy indi aw ay te aw ay nag dañuy wax ne xam nañ fu muy tàmbali waaye kenn xamul fu muy yem lii baa ngee di tàkk ba ñeent fukki at ñaari xale yu ndaw rek moo ko waroon kon nag mbooloo mu génn ñaan tuuti naag bëriwut ak tëwagul état bi yooyu yëpp amul solo nan ni mooy fexe ba mbooloo mi toog delloo leen dal leen ñi nga xam ne ñooy yirif nit ñi ñooy jiite nit ñi ñu sax kenn yirif ñu jiite nit ñi nan génn wax ak nit ñi wax lu leen dalal lu tax gone yi delluwaat seen xel dal ñu fexe ba waxtaan ba indi jàmm ci réew mi ñëpp delluwaat ci jàmm ji moo ëpp solo lii ñuy tàmbali ci kenn xamut fu muy yem te buñ ci teelut jug nag mën naa fi fépp fii yëpp egg bokk yi xam ngeen ne ñu ngi ci weeru rajab jëm ci guddik ñaar fukk juróom ñaar muy guddik gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa riñaane woon jóge makkatal mukarrama jibril ñëw foofa yóbbu ko ca kaaba ga xar dënn ba raxas ko ba mu set wicci mu tàbbil ci ndoxum ci ndoxum sam-sam laabal ko daal ci def ngi imaanan wa xikaman sotti ko ci moom ba mu fet jàll daal di ànd ak moom ci buraax al buraax wutal ko ak teg ak laab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war ko jibril jàpp ca digal ba mu yéeg mikaayel jàpp ca laab ga yu yéeg ak moom dem baytil muqaddas ba mu demee mu daje fa ak yonent yu baree bari julli julli jiite leen fa daal di soog a yéeg ci asamaan si juróom-ñaar yëpp asamaan su ne day dafa ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba egg ca sidratul muntaha mu eggee foofa mu fu nga xam ne fa ba fa tollee day toog di dégg xalima yi sun yi yi ñuy binde ci lawxul maxfuus foofa jibril ne ko fii laa mën a yem جل لك وسوق جل بقى جت حضرة الرحمن عندما جل جخ فلم كو جخ تأي لير أكي بركة أكي ترانجا موديل سوات جارات بيت المقدس دلت مكة فجر جرود بام خي مكوي نتل دي نيني فيم ديمون فيم ديمون ñan ñi daan tàmmale weddi ko ca saasa ñaan ak ki defar na dégg nag kon naan في في بيت المقدس رك نخم ن دخوب أي فير لا نعند بنا في ليك أمن تجي نخم دم كلا نخم بيت المقدس دم ديك دكلا بيت المقدس نمل سنو بام دار كي نمل نمل مي خال دين وح نيل من نيل من نيل من نيل من نيل من أكتر رومانا تيون مسخ نجبي نيو بخم ن في نعند فان دناس وحنا نبوا ñap ñap fédd ko ci ëpp am na ay ban ko ñu daal di gaaw njëkkati neen seet Ababacar bàyyi faalam bii nag moom naa waaye ñu egg na fa mu jëm ban dikkee wax ko Ababacar dana leen loolu fekkee moo ko wax man gëm naa ko bu ne dem na bii bayt maqdis njëkk fayar jëlsi man la usaddiquhu fii maa huwa abhad min zaalika man la bu wax lu gën ëpp loolu sax danaa ko gëm kon nag looloo tax ñu tudde ko Ababacar as-Siddiq bi mu déggee rek la gëm kon nag guddi googu sax mu ngi ñëw nañ ko waajal bu baax a baax rawatina nag ñu murid yi nga xam ne sunu waajur sunu yaakaar Cheikh Mahamadou Fadil radiyallahu taala anhu moom it ci la gane àdduna la ci guddi gàddu rajab moom danaa wax ne ku baax ki dana lay rek mën a cëpp kon nag moom itam guddi goo xam ne guddi murid yëpp la ndax Cheikh Mahamadou Fadil li mu liggéeyal Serigne Touba li mu liggéeyal islam li mu liggéeyal diine ji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 والتف بنا وغونا وكن لنا وحبلنا وثناء وثنى قدام ربنا وصلينا على النبي وسلم وقت به عاجة كل مسلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان